yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi ñoo wuyu si woon woote bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma woote woon na ko tey ngir ñu fekk si leen fii ci jumaa ji euh, ànd ak ñoom euh, jotaayu xam-xam bi nga xam ne te moom lañ doon amal léegi nii ginnaaw gi itam ñu fekkee ndogu yi nga xam ne moom lañ bokkandoo ñun ñëpp ndog nag mu am solo lool ndax da gis koo xam ne daa am daa taamu ñëw ndogoo fii ci këppaaru Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba naam mën na ko waaye mu mu taamoo ko defe ko ci barab bi ñëw mën ko fee defee am koo xam ne itam xëy na euh, yoon yoonu tukki daboon na ko euh, mu jullee fi euh, xaw fee tumuranke ñëw ndogoo fi am koo xam ne daa mel ni man xëy na tolluwaayam tolluwul noonu fii la ko mën a te fii itam xëy na tolluwaay man demewul noonu moom mën mën ko fee defee yooyu yëpp nag bu fekkee dajal nañ ko dañuy feggoo ak kuréel yoo xam ne dañuy ñëw nag ndax liggéey boobee ku ne ci yoonu murit yaa ko waroon defal sa bopp léegi nag bu fekkee ndaara bi jiitu ne ko itam dafa am kuréel yoo xam ne di ko sëq ak ñoom ndax moomeel bi moomeelu ñëpp la moo tax xuratul ayni bu kër sëñ euh, nag ñoo am am solo sëñ Saliou war a yëkkati kaddu gi ci ginnaaw bi nga xamante am na alaqa bu am solo bu dox seen diggante ak daayira bi ak itam jotaay yi fekke ak itam jàngat nga xam def nañ ko ci di xam-xam ñu leen di nuyu baax di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu rahim alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi yëkkati kàddu muy doon kàddu nuyoo ak kàddu yu cant yoo xamante ni mi ngi bàyyikoo ci sunu kilifa yi ñu àndal mu bàyyikoo ñoom ca seeni kilifa ya nekk ca kër sëriñ Soyibu di daayira xoratul xayni bi nga xam ne ñoo fay dundal mboolem lépp loo xamante ni lu aju ci xam-xam la ak ci wàllu diine ak jàng ak jàngale ak yar ñoom ñoo wuy si tey daayira bi nga xam ne mooy daayira Muxaddamaatul Xidma eh, ci njiitul sëriñ Abo Mbàkke moom sëriñ Modou Habib ànd ak sëriñ Sidi Mbàkke moom sëriñ Seex Say ak sëriñ Abdou Samad Mbàkke mi sëriñ Abdou Samad Silla Silla mi nga xam ne imaam la ca jàkka ja ca jumaa ja sëriñ Abo mi tamit imaam la fa sëriñ Sidi mi ñu waxit di gone gu bëgg xam-xam ittewoo ko xam ngeen ne fan yi dañ doon fàttaliku sëriñ Sonyubu mu doon fan yu jege eh, ci waxtu wi ba tax na bëggoon noon mbooloo mi bari lool ak ñëw ndax woote bi ñu leen woo woote bu sedd seen xol la waaye nekkaat ca yee ca desaat ci ittewoo delloo bagage yaag ak jeexal màggal ga loolu moo tax ñu ne nan yebal ñi nga xam ne fu nu taxaw rek taxawal nan fa mbooloo eh, moo tax ñu yëkkati seen cant di wax ne woote bi ñu leen woo yéen ku woote ku ngeen woo mu wuy si xam naa buy ñëw war naa gànnaayoo yu bare bari mooy ay teggin xam-xam ak ak laab ak ak dal ak fas yéene ju rafet joo xamante ni xam ne njariñ rek lay jëli fii te tey jii bi ñëwee wax dëgg yàlla fekk nañ fi lu sedd suñu xol li ko jiitu mooy thème yi nga xam ne yéen a ngi koy waxtaane thème bin ci taseel tey moom thème bu bu itte wala bu aajo wala ci biir kër yi sax ndax tem boo xam dafa jëm ci idda te sëy yu bari wax dëgg yàlla ku ci rafet njortit xel bu dee boroom xam-xam dalu ci nan koy defee tey ñu dolleekuwaat ci fii ci dars bu rëy rëy sëriñ son yi bu mu wax nan ne daana yebal ci ay nit ñuy fas fase xam nga ku nekk mën ngaa bëgg génn ci saw njaboot bu demee bu ñooña fasee ba noppi ci wóorloom ak bëgg lu wóor day fasaat sëy bi sax ndax gën koo dëgëral loolu lépp day wane rek mbirum sëy importance bi mu am ak fi ko diine teg ak ni ko sëñ son yi bu bare bëgge ndax ay lënt da cee bari lool yu ci am te yooyu nit ñaa ngi ciy jànkoonteel di dem di leen sant tamit ci ni nga xam ne ni ngeen ñoŋale barab bi ba noppi aar ko ndax barab bi mooy sémbalu lislaam fii ci mooy sunub sémbal ci yoonu murit sémbalu lislaam la sax euh, boobu nag ngeen gis ni ngeen ciy taxaw seen waxtu yëpp ngeen def ko ci guddi ak bëccëg ak waxtu wu nekk yéen a ngi ci di yee nit ñi di jàngal nit ñi di sonn ci lu ñëpp waroon a sonn ngeen ittewoo ko sonn ko di nu warmaalal barab bi tey gan gu fi jaar du nu rus mu dugg ci jumaa ji ndax na muy fekkee na ngeen koy organiser ci xam-xam na ngeen leen di dalale ci teggin na ngeen leen di kii rawatina nag bu dee koo xamante nii rek dafa ñëw ngir ndogu si rek ko itteel wala mu jaar fi fekk ko waxuma la lekk gi fi nekk waaye teggin yi ngeen koy joxe nit ñi ak service gi ak sell gi loolu moom wax dëgg yàlla lu kiimaane li ngeen def daal defal ngeen ko ñëpp ñu ngi leen ci sant bu baax ci turu xoratul xay ni yéene ji ñoom moo doon seen yéene ndax ñoom lii euh, am nay jamono yàgg tàmbali woon nan ko sax ndax amoon yéene mu mu mel nii wax dëgg yàlla bi ñu xamee ne jumaa ji mi ngi koy def daf mel ni ñëpp dañ koo defal ñi ci doon mooy ñëpp sax dañoo bàyyi rek ngir symbole fii euh, ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax di leen gërëm thème yi ngeen fii def ak borom xam-xam yi ngeen di def it ñoom it xam nañ ko ndax gis ngeen li ñoom ñi màggal gi ñooy dundal fële ba ci koor gi ngir yaatal bay bàyyi fii symbole bi dem juma ji ba juma ji leen fay def Eh, teewut ña ngi ko fay dundal ci ndogu waaye xam nañ ne fii mooy kii bi baas bi ngi leen di ñaanal bu baax yàlla fay leen te di leen sant bu baax di ñaanal imaam bi nga xam ne moo fi nekk sëñ Afe mi ko jiite ñu ngi koy sant bu baax ci turu xoratulaay ne ak sëriñ Abo mi di ñaan yàlla nañ ko fekkee déwén yàlla nañ ko fekk ay ati at te yàlla dolli leen kàttan ak wér sëriñ bi nangul leen seen liggéey te fay leen ci barke sëñ Touba asalaamualeykum wa rahmatullah yaa xayra dayfin ataa bil ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi